2022 lañ jëm ak local yi 2024 ak sunu kanam ak présidentielle bi waaye fi mu ne nii ñu gis ay coalition di formé wu ci sa yenn naataango politique yi fi nekk bi ci mujj ñu mën cee tudd yeewi askan wi ñi ci gën a fës di Ousmane Sonko bu Pastef ak Khalifa Sall ak Taxaw Sénégal ak PUR eh, dégguñu la ca ban jàngat nga am ci loolu ak lu xew sa position par rapport ak mbir mi. non non vraiment ay ay jàmbur yu daje def seen yëf man aw ma lu ma ci. xanaa consulté wu ñu la wala woo aw ma lu ma non vraiment. d' abord consulté wu ñu mais garaawut. vraiment gis naa ne am nañu leen xaw a yooyu mais un dérangé wu ma deux mere leen ci. ça m'est strictement égal parce que droit la ñu am ci dajaloo waxtaan ci seen biir suñ juboo ñu def li leen doy. man maa ngi ci li ma doy jàpp naa ne nag opposition bi dafa war a daje mais daje nag dafa am lu muy àndal ñoon ñoon naka jekk noonu lañ ko daan doxale depuis 1982 mi ngi bëgg a yàgg booba Abdoulaye Wade moo doon le principal parti de l'opposition mësuñoo def dara te ñëpp teewuñu Abdoulaye Wade daan wax bu gaa yi ñëwee gis nga teg cin li c'est pare nañ ci yow daal boo amee ay xalaat maanaam ndugg mi mën ngaa bu gaa yi ñëwee nga ne ah, demoon naa marché de gaa yi lii de laa teg waaye nag ndugg maa ngi nii nag ku ne wax waaye lu ci ni ñu koy doxale kooku moom ñëpp a koy waxandoo kii ne nañ dindi lii dugal lii keneen nañ dugal lee dindi lee ba ñu juboo noonu lañ ko daan doxale parti dañu am différence ci wàllu pois électoral et puis poids xam nga day toxu <laughs> xam nga day toxu Sénégal ñëpp xam nañu ne poids électoral day toxu euh, donc dama ne égale dignité même si les gens sont de poids électoral différents maanaam diisaay ci wàllu élection man naa wuute waaye nag euh, wegante ak yëgante ak respectante kooku moom mënta ñàkk fi may jeexale mooy man gëw ma ne gëw ma ne nit mën naa toog fee ne Yewwi askan wi askan wi mooy Yewwi boppam ci nag organiser wu xam li ñu bëgg am direction politique bu valable bu ko jiite mu sotti mu sotti waaye musaa Ndiaye taxaw ab lay Ablaye Ndiaye Mamadou Diop et cetera ñu ne dañuy Yewwi askan damaa mësut gis mm. ci àddina bi mm. fu loolu amee mësuma koo gis nga yore partie muy ànd jëf du ñu dégg lool sa présence wala ci sama jàngat bu fekkee juum naa ci daanaka dañ léegi tout le temps ci côté coalition bi nu boolu opposition bi fexee doon benn ngir jàmmaarloo ñu fi nekk ba mu mel ni sax da ngay fàtte yow sa parti dëgg la fan la président Mamadou Diop Decroix toll ak parti am ak naka ngay waajee li nga xamante ni mu ngi sunu kanam. dëgg la loolu loolu dëgg la loolu dëgg la même waa parti bi dañu ma ko daan reproché te it lu la parce que. jiite dafa xaw a metti dafa dafa dafa tiis daal maanaam bu fekkee ne dañu ne bon opposition bi euh, yaakaar nañ ne daal Mamadou Diop mën na cee dox fii dugg wax et pour loolu dafa dafa dafa dafa tiis suñ parti naka jekk noonu da koy doxe xam nga ne ma defal la benn euh, scoop. ñu ngi déglu scoop bi. 1998 euh, dañu def élection législative bi ñu paree ma xool résultat bi Abdou Diouf am cinquante virgule enfin parti socialiste cinquante virgule quatre cinquante virgule dix-sept opposition bi réunie am quarante neuf virgule quatre-vingt-trois xam nga kon kooku équilibre dugg na dugg na rapidement ma waxtaan ak euh, sama grand frère Landing Savané moo doon secrétaire général bi ñu xoolee ñu ne aaway ah ñu de l'an 2000 suñu ko toggee mën na sotti Landing était candidat parti bi moo ko investir investiroon mais dañu desine ne non avec ça Landing ne doit plus être candidat ah ñu àndandoo def délégation dem point E seeti Ablaye Wade booba Ablaye Wade 93 amoon na 30 pour cent et quelques ci présidentielle bi mais législative bu 2000 1998 boobu le PDS était en dessous de 20 je crois que 19 et quelques la amoon ba pare entre temps am na ñu bare ñu ne woon ci PDS ñu dem. ñu bari bu du ma c'est pas la peine may tudd ay tur donc c'était difficile mais quand boo xoolee résultat yi da ngay gis ne et puis man dama xool la la baisse tendancielle niñ koy waxee ci résultat parti socialiste ci élection bi de 83 à 98 chaque fois nu muy wàccee donc ñu dem seeti président Wade ne ko daal ñun jàpp nañ ne dañu war a def benn coalition pour l'an 2000 ñu man fi jëlee parti socialiste Idrissa Seck fekk na ko fa bi bi ko président wa la Wade laajee nu mu ci nu mu ci xalaat dane waaw tey de mel na ni waa muhajirin ak ansaar daje nañ noonu noonu la ko noonu la ko modéliser noonu la ko wane euh, bañ fa jógee ñun Ablaye ne ñu nangu naa ban fa jógee booba bépp parti bu nekkoon ci Sénégal ca booba jamono seeti nañu la parti d'opposition seeti nañu la ñun wax ak yow ci loolu ñoo booba ñu ngi ko tuddewoon ñun la grande alliance nationale pour l'alternance ginnaaw bi la doon euh, nu mu tuddati euh, coalition alternance c CA 2000 bi Moustapha Niass taxawelee code 2000 moom itam Euh, ñu àndandoo def front pour la régularité et la transparence des élections FRTE man mi maa ko jiite woon coordonné ko kon ñun am nañu lu ñu xam ci opposition ak ci naka la ñu war a def pour mën a éviter ndëgg sërëx yi cetera fii mu ne nii inscription yi léegi mu jeex taluñu direction parti taluñu sax inscription yi nit ñaa ngi kaas certificat de résidence nit ñaa ngi kaas Euh, lu nekk ci affaire yi mais déggatul sax opposition bi leader di ci wax parce que taluñu ñu ngi rey ñëw Ndakaaru jàppal bàyyil et cetera alors que le plus important c'est de contrôler waa li ëpp solo mooy ñu saytu euh, euh, processus bi mbirum mbirum wote bi mhm. jaar jaar yi wote ba lépp tegu ci yoon loolu loolu la tubaab di wax processus mhm. mais mais defuñu ko